raw suñ juddu ndax suñu bàyyi la woon bàyyam suñu bàyyi ak fi indi woon mu nekk fi kon loolu raw na raw na raw na seen jur boobu ñoom juddu wuñu waaw. keroog dama ko laaj ne ko tey bu amaan nekkoon roi des arènes euh, dana compliqué ci yow mu ne suma ko nekkulee sama rakk nekk ko loolu sax ma gënal ma ma nekk. waaw loolu loolu lu mu wax dëgg la waaw loolu lu mu wax dëgg la. combat Ama problème bi lan la exactement parce que wax ji bari na ku nekk ngi tiire fu ne di wax. waaw xëy na pour xëy na promoteur bi moo yor lu mun a compléter rek xëy na promoteur bi moom bu yoroon bu yoree bu yoree làmb dina dina dina taxaw. mais promoteur bi nee na fay na prix quatre-vingts millions. ba ñëpp jàpp ne xëy na combat war na mën a taxaw mais barki dem dañ dégg jël bu ñu ko fayul cent du bëri. waaw promoteur bi xam nga rek nit ki moom li ko jaral nga koy fay lamb dafa difficile munoo fay kale triple am fay fay kii noonu noonu te lamb la lamb la lamb moom après day jeex waaw. mais est-ce que nekk ci yoon tamit aussi euh, lii di opportunité bu mu a saisir ci moom pour mu déglu roi des arènes est-ce que mënul woon accepter quatre yi pour enrichir carrière am. fekkoon Ama mu doon dindi vingt ko mot cent millions pour mu bëree moom. mais combat boobu neex naqari dana am. ah waay en tout la rek. mais ñu bañuñu kenn ku ñu ku ñu war a rek ku yàlla dogal ñu bëree moom waaw.